ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدناء asalaamaaleykum euh, mbokku internetu Dakar Actu euh, ñu ngi leen di nuyu di leen euh, ziar ci waajtaayu màggal gi nga xamante ni jamono ji mu ngi fekk biir Touba ñu fas yéene amal liggéey bu yaatoo yaatu ci li nga xamante ni soxal na waajtaayu màggal gi ak lépp loo xamante ni aajoo na ci notamment li ñuy wax wàllu restauration ak hébergement ngir dalal gan yi nga xamante ni dañuy jóge fépp ci àdduna Euh, tey nag ñu ñëw euh, fi nga xamante ni moom mooy diwaanu euh, kii di sëñ Abdoul Wadoud moom mi nga xamante ni dafa bokk ci comité d'organisation màggal gi bokk ci ñenn ñi nga xamante ni dénk nañ leen liggéey bu am solo ci li nga xamante ni également moom mooy màggal gi ni muy doxee ñu ñëw fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy waajtaayu màggal gi naka la ñuy teeroo ñi nga xamante ni ñoom ñooy gan yi naka lañ leen dalale dalalee yan jafe-jafe la ñuy am en général ngir leen ci ci eh, événement bu mel ni màggalu Touba nga xamante ni chaque année eh, day eh, am mbooloo mi nga xamante ni day gën a takku macha allah. ni ñuy amalee liggéey boobu nga xamante ni moom mooy dalal gan yi nga xamante ni ñooy ñëw fii ci diwaanu Touba. comité d'organisation màggal Touba bi nga xam ne Cheikh Mahamadul Amin Baara Mbàkke yàlla yàlla yokk ay leeram mu Cheikh Mahamadul Fadal ginnaaw Serigne Saliou Mbacké yal na yàlla yokk ay leeram mooy ki nga xam ne moo joxoon digal sëñ Bassirou Mbacké mu Cheikh Abdoul Khader mu sos comité d'organisation bi sos gi itam la doon sabab bi mooy dafa wax ne dafa bëggoon daal màggal gi nga xam ne benn bis rekk la ci yoonu murit ndax boroom moo ko santaaneel boppam ci 2007 laay wax boobu la alaaj boobu la alaaj baara njëkk toog booba euh, téméré nit képp la woon presse bi yépp te RTS moo ci ëppoon yàlla dogal muy dox di dox di dox di dox ba mujj nekk ay 1200 1200 cent yooyu yëpp itam nag bala ñuy ñëw daañu leen waajal am na benn sous commission bu ndaw boo xam ne mi ngi ci biir communication moom mooy def euh, affaire agritation yi nga xam ne yéen ñëpp ci ngeen di jaar pour doon a mën a liggéey su ko defee on ñu ñëw def loolu ñëwee itam ñun ñi nga xam ne ñoo yore wax te muy nag liggéey boo xam ne euh, liggéey bu la du wax bu metti ndax kilifa ci liggéey bu la kër danañ ci wax ak waa maamu rahmat mooy ñu yore wàllu ndox mi ndax ku ne xam na ne màggal Tuubaa euh, ndox dafay manqué lool ndax Sénégal moom dëkk la boo xam ne daanaka bu màggal sax dëkk yu mag yépp day manqué ndox kon màggal Tuubaa daf si raw loolu moo tax kër gu ñu jël dañ ci euh, ànd rek maamu rahmati ci liggéey dana fa dana ñëw xool ko def fa branchement boo xam ne dafay am réservoir d'eau bu mag boole ko ak pompam ba nga xam ne euh, ndox du fa manqué. sëriñ bi dafa woote màggal gi te xam na ne màggal gi day day gën di yokk at mu jot li ngay am bu déwénee da nga am lu ko ëpp léegi comme dañ koo séddale am na ñoo xam ne ñoom la ñuy tuddee délégation kilifa kër kilifa diine yi. ñooñu am na ñu leen yor muy waa organisation mat nañ ñoom it dañu romb 1000 personnes mooy gane yi jóge ci kër diine yi nga ñëw ci beneen boo xam ne moom itam moo yore relation extérieure mboolem gan ñu gu jóge bitim réew ñoo leen di dalal moom it seen lim xam naa ne jombut dana mat lool wala mu ëpp ko nga door a ñëw nag ci presse kon ñett yi ñoo fi nekk ñoo xam ne dañuy dalal ay gan. ñun ñoo féete ci waañ bi man euh, Khoudia Ndiaye mooy sama jëwriñ soxna Khoudia Ndiaye nekk dakaar moo nekk sama jëwriñ maa ngi moom ñoo bokk di liggéey fii liggéey bi ni ma demee mooy ni ñu ko sëñ bi di sant rek ndax dañoo wax ni nañu bisu màggal gi bisu sant yàlla la ndax Serigne Touba dafa wax ni képp koo xam ne sa mbég sama mbég la rek naka ñëw santale ma yàlla Serigne bi nag ci loolu la ñu xiirtal ni nañu ñëw santale Serigne tuubaa ci bisam bi màgg bu tedd bi ñu féetewoo nag ñun restauration sëñ bi wax ni nañ koy def nu mu muccee ayib mooy def ko ba mu sell def ko defin boo xamante ne nii macha allah te nañu fexe ba nga xamante ne dañu togg bu baax mu neex te mu bari waaw wàllu restauration bi moom itam euh, li ñuy def mooy euh, ay ay deux heures du matin trois heures di matin la ñuy defar wàllu ndawal bi bu fajaree jigéen ñi tàmbali. na ca fi ne bu ñuy pare heure yi fekk na euh, oto yi ñu yore dem nañ wëri dal yi fu ñu fi yóbboon bool ñu jëli ko ñëw andi raxas ko jox leen fu ñuy préparé kooku demaat na oto bi demaat na dem jëli ndawal reer bu ñu ñëwee nga xam ne daal ñoom duñ noppalu bu ñuy paree ci rek duggaat ci te amul dara luñ ci séntu lu jër Seex Xaadim rek. kenn fayuñu de ndaxte ñaari intérêt mënuñu ko am. ñun xam nga lan la ñuy wax fayu sëriñ bi rek fayu sëriñ bi mooy fayu yàlla mooy fayu yonent bi ngi doon waxtaan ak euh, ki nga xamante ni moom moo di moo euh, Modou Wodoot euh, mi nga xamante ni tey indi nañu lu bari ci ay leeral par rapport ak ni ñuy organiser li nga xamante ni moom moo di wàccaayu màggal gi ak lépp lu jëm ci wàllu hébergement restauration ak conditions yi nga xamante ni gan yi en général kilifa yeeg ba ci nga ñi nga xamante ni ñoom ñoo di la presse en général. Euh, ni ñu leen di toppatoowee ak euh, ni ñu leen di dalalee euh, mais li ci gën a am solo aussi li ñu war a gën a mën a bàyyi xel mooy lépp loo xamante ni tey lu rafet la lu yiw la mu aaju ci màggal gi nga xamante ni màggal gi tax na koo jóg ñu jéem a fësal yu ni mel bañ a daal di jël yenn jëf yoo xamante ni daal jëf yu doyadi la di ko wane en général ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax wax na itam li nga xamante ni moom moo di façon bi ñuy héberger ñi nga xam ñoom ñoo di gan yi Euh, wax leen également manam demander leen dal leen ñaax ñu gëna am compréhension gaal yi gëna am manam euh, compréhension bu doy par rapport ak ñom ni ñi liggéeyee parce que tamit euh, bu ñu bay def ay effort yo xamanteni ni sax amana wessu na seen mën-mën lool yépp day jublu ci li nga xamanteni ni modi day rafetal magalgi, gi rafetal aussi li nga xamanteni ni biñ mu ngi ko doon ñaax képp kuy talibé nga amal ko ci bëss bi nga xamanteni ni modi bëss bu mag bobu ñuy feete jëfu liggéeyu Cheikhul Khadim euh, moomu nga xamante ni euh, kenn dootu ko présenté ci ci àdduna ñi nga xamante ni tey bokk nañ ci ñi ñi ngeen di dalal fii euh, ci résidence Khadim Rasoul muy chef religieux yi notamment ñi nga xamante ni tey dinañ jóge fépp ci réew mi ci kilifa maanaam ci tarixa bu nekk ngeen fasiyene len dalal tay ak contexte bi nga xamanteni mom lañuy mui muy euh, mbass mek jafe-jafe yi aduna ak khat xat yeeg yu ni mel euh, naka ngeen manam ak ayub gan yooyu le waaw euh, loolu dañ ko wajal ci ci tambuli bi ndax bi magal gi euh lu mat ñetti semaine wala ñenti semaine dañu bind ay invitation yo xamne Cheikh Amadou ci tour Cheikh Amadou Bassir envoyé ko gan ngir nombre de délégation yi daa ñëw képp ko xam ne 30 moo daa ñëw wala 15 wala 10 ñu xaaj ko ci digg bi wala ñu xaaj ko ñaari xaaj ngir euh, mu doon nombre bu bu néew ndax fii boo dee xool daanaka euh, lépp daana mat 180 euh, délégation wala 185 délégation loolu nag su fekkee ne délégation bu nekk dafa indi di personnes kon loolu kenn du xam nombre bi ni mu toll te daanaka daana demee noonu daana bëri lool lool ba tax loolu dañ ko teel a anticiper yónnee leen invitation yoo xam dañ leen di limité. sécurité aussi fii suñuy nawle ñoo fii ñëw di ay kilifa yi di ñu mag fañ nekk kon jaaru na fu ñu nekk ñu saytu len teg leen ci norme yoo xam ne mel kër mukk waaye nag mu xaw a ba tax euh, pour nga am fi accès moom da ngay am carte d'accès wala nga am bars seen oto yi tamit dañ leen di jox euh, parking yoo xam ne dañ leen di sécuriser euh, liggéey bi am ay jafe-jafe waye jafé jafé yu ci bari nak su ñëwé dañu fexé ba lijjanti ko euh, ci ci ci ak dal ak xel ak expérience bi nga xamné am nañ ko ci ci liggéey bi loolu motax danaka euh, du faral di feeñ lu bëree bëree bëree. wàccaayu màggal gi lañ teel a bàyyi xel loolu ba nga xam ne chambre bu nekk su fekkee ne cinq moo fa daa dem dañ leen ne invitation boo xam ne na leen na doon deux personnes su dee dix ñu ne leen na doon quatre wala trois kon loolu sóoraale nañ ko ku sóoraale ci ba ci ñëw gi xam nga ne soo ñëwee kon eh, yi jumtuwaay yi nga xam ne mooy mooy xeex mbas mi weesul masque wala sel wala cat ak ak ak ak lu ni mel yooyu yëpp dañ ko sóoraale ci waajtaay yi ndax ndigalul sëriñ bi lañ ci am liggéey kum comme tax jóg da ko war a yëg kuy dem tool wala muy dem ci atelier am war naa am comportement bu muy am ak yëg-yëg bu muy am te fii presse bu ñuy ñëw dañuy dem tool kon nag ku bëgg dem tool ba nekk ba noppi nag bëgg yenn féex yi dëgg yàlla ñoonul maanaam màggal gi tam ni mu rëyee nangami million nit ah nga bëgg di añ heure di reer heure di tëdd tëdd bu yaatu wax dëgg yàlla loolu ku ko bëgg ci màggal gi nag te sax damay ragal ne am na ci loo xam ne eh, fii Sénégal toll léegi bu dee bu dee bés yii rek ak sa kër gu ndaw sax wax dëgg yàlla bala ngay añ ñi ci ëpp ay une heure heures jot kon nag suñ demee rek ba nga bëgg a toggal ay nangami téeméer jëm junni ñu bëgg mu ñëw ay midi ak une heure ak heures loolu du lu ma a nekk kon daal li ma bëgg wax foofu rek mooy ñu am compréhension xam ne su ndox manqué ñu xam ne dëkk bi moom la ndox mi manqué wa munzili shifa